Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sénégal mbokku jàmm jaam ak jamono ah ñu ñëw nag euh, di def vidéo bi live bi ah, euh, je pense que mooy dernière vidéo wala live boo xam ne dinañ ko def ci. mbiru usmaan sonk mbiru Ousmane Sonko sax laay wax ndax mbir mi nekkatul usmaan Sonko ak Adji waaye mbir mi usmaan Sonko la may ñaan na képp koo xam ne yaa ngi seetaan live bi te bëgg jàmm Sénégal te bëgg dëgg nga partagé vidéo bi ba mu yegg fi nga xamante ne bu fa yeggee jàmm am senegal di nuyu ñëpp vraiment amuñ sax amuñu kàttan sax def vidéo bi mais lu mënta ñàkk la foog mu am c'est une urgence qui s'impose donc di partager leen vidéo bi su ko defee am ñeneen ñoo xam ne dinañ ñëw fekkee waxtaan bi su ko defee message bi mën a yegg fi ñu bëgg mu yegg mais nag waxuñ ak les partisans de Sonko waxuñ ak les partisans de Macky Sall waxuñoo kenn koo xam ne rek yaa ngi def farfarloo waaye ñi ñuy waxal ñooy sénégalais yi bëgg senegal sénégalais yi bëgg jàmm senegal sénégalais yi xool dëgg di ko wër te di ko gis di ko wax di koy doxee di koy waxee boobu sénégalais lañuy waxal sénégalais boo xam ne bëgg nga dëgg sénégalais boo xam ne gëm nga yàlla gëm nga dee am na gëm nga dekki am na na nga xam ne vidéo bi yow yaa ko moom rawatina nag sénégalais bi nga xam ne taxaw na temm bëgg jàmm am senegal te tiit am njàqare tey ñooñu la ñuy waxal ci vidéo bi ñu ngi tàmbali nag ku ñëw rek dab ñu fekk ñu ci waxtaan bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk senegaal ñu ngi leen di nuyu di leen di ziyaara di leen bal aq di leen balu aq di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci kenn ku nekk ci yéen yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla defal ñu jàmm fi may njëkkee sama vidéo sama live tey nag mooy ci Ousmane Sonko dama bëgg sénégalais yi ñu déglu ma bu baax a baax a baax ndax nag wax day yenu maanaa wax dafay yenu maanaa te nit ku nekk nit ngay doon nit ku nekk bés dina ñëw dinga nga jàkkaarloog sa borom muy Macky sàll muy usmaan Sonko ak kum mën a doon ci àdduna bés booy dajeeg sa boroom kenn du taxaw waaye nag xulil xoq walaw kaana muran waxal dëgg donte dëgg gi sa kaw lay dal lii nga xam ne moo xew ci affaire Ousmane sonk jaamu yàlla boobu nga xam ne yàlla moo ko bind def ci moom li mu def ci moom te xam ne lépp lu mu namm ci moom dina am bu àdduna yépp jógoon tey taxaw xañ Ousmane Sonko li nga xam ne moom la yàlla namm ci moom mënuñ ci dara waaye it bu àdduna yépp bëggoon jóg pour fal te yàlla namm ko ci moom du falu kon coow li lu ko fi jar coow li lu ko fi jar ñu ngi wax nag ci jaamu yàlla boobu ñu tuumaal nga xam ne tuuma nu mu bonee mën na yàq dund nit mën na yàq àddunaam mën na yàq askan lëmb lëmb lëmb waaye nag yàlla mi nga xam ne dara tëwut dafa leeral mbir yi moo tax waxatuñ mbiru usmaan Sonko ak mbiru aji Sarr li ñu ci jublu nag pour man mooy yàq deru Ousmane Sonko yàq deru jaamu yàlla boobu tuumaal ko jullit boobu te képp ku ko xam xam ko ci lu baax xam ko ci njub nit nag boo koy jugé wala nga koy atte ci mbir moo xam ne yow dara leeru la ci fekkee woo wax dëgg yàlla rafet jot rek nga ko mën a atte kon kenn ku nekk ci ñun tey xamuñ li xewoon foofu Sweet Beauté ñun buñ doon atte tey Ousmane Sonko enquête amul dara amul ñun Ousmane Sonko ci sunu ragal yàlla rek lañ ko mën a atte ak sunu maanute ak sunu rafet jot waaye tey ku nekk ngi wax carte gi jaxasoo na mais dama leen di indi yéen sénégalais rek ngeen dégloo xel ngeen bañ a dégloo far wala amalu leen benn njëriñ que muy Ousmane Sonko que muy Macky Sall kenn amalu leen ci njëriñ mais nag ñooñu bu ñu tax yéen seen dëgg rëcc leen buñ tax ngeen tilimal seen diggante ak seen borom ba bu ngeen wéetee xale di ruus di am gàcce Ousmane Sonko li nga xam ne nee nañ moom moo xew ñëpp di xaar enquête yi génn. bi enquête yi génnee PV yi tas ci àdduna bi tas senegal ku nekk jot si ku ne xam nga li ñu wax si PV yi ku ne déglu nga témoins yi li ñu wax bu leen xool chercher la petite bête di jéem a xool luy ñuul ci soow bi Ousmane sonkoo jamono da ko setal ba mu set wecc wecc wecc wecc ba mu set wecc lu tax ñi nga xam ne ñoo def enquête bi muy la gendarmerie wala boog su fekkee ne journaliste yi toog ci plateau yi di wax toog ci réseaux sociaux yi di wax wala ñoom ñoo ñu nax wala ñoom ñoo ñu yàpp wala ñoom ñoo yàpp état bi ba génnee loo xam ne ne nañ gendarmerie moo ko def muy PV ci enquête yi te du dëgg. xam ne loolu bu nekkutoon dëgg ñu état dal na seen kaw gendarmerie porté na leen plainte kon gars yi lii ñu dégg ci enquête bi ku dofu jinne jàpp la faro wax rek te yàlla tax xam ne lii moo xew ci enquête bi xam ne lii moo xew ci enquête bi yàlla nag moo moom ay jaamam te képp kuy tuumaal jaamu yàlla yi képp kuy tuumaal jaamu yàlla yi na nga jàpp ne bés di nga ñëw dinga nga te dinga nga sunu borom te di nga dajeeg sunu borom fi ñu toll nag. mooy uññiwante sutura toroxalante waaye de ñun yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bu ñu yàlla dugal ci lool usmaan Sonko nag ñu ngi wax naan ndaw si moo nangoog fii la xar yi jaar ak lii ak lii ak lii ragal leen yàlla aji saar bu fekkoon ne usmaan Sonko da ko sàkk mu nangu te mu pare ko taqal tuumaal ko Ousmane Sonko du mucc ndax bu joteeg moom ba lim wax ne Ousmane Sonko man yoom génn na am na ko kon lu mu dof dof ñi ko ñi teg complot bi lu ñu dof dof dof aji Sarr dina jël li nga xam ne mooy man usmaan Ousmane ko def ko ci kanamam gars wax dañ koy wax mu leer man niwu Ousmane ko tey bu fekkoon usmaan Sonko jëflante na ak Ami Sarr li ñuy jéem a def ci xeli nit ñi di jéem a yàq deru jaamu yàlla boobu gars senegal Sénégal dama bugg ngeen yeewu bu baax a baax seen nopp bi ku nekk mën na wax waaye bu leen dégg bu bu nekk bàyyi leen lu ngeen dégg rek jàpp loolu la nit day xalaatal boppam yàlla nee na borom xel yi laay waxal tey bu fekkoon Ousmane Sonko def na loolu ba jëflanteeg Adji Sarr médecin bi def rapport bi dina ko bind dina ko wax te li médecin bi wax yéen ñëpp dégg ngeen ko yéen ñëpp dégg ngeen ko luy nuroog luy xeetoog man yu nekk fa xale bi bi mu gëjee sëy kenn xamul kan la gars gaa yi nañu ragal yàlla bu baax a baax a baax nañu ragal yàlla bu baax a baax a baax a baax Ousmane Sonko bu jote woon ak xale bi ma ne man yoom xale bi dina ko am ak ñi nga xam ne ñoo ko seq yépp su boobaa doful dina jàpp ko dina jël man yu Ousmane Sonko donte ànduñ sax bu seqoon ak moom dara rek wala mu maase ko ba ba man yoom génn rek dina jël man yoom def ko ci kanamam dina jël man yoom def ko ci kanamam gis nga yàlla ku mu buggal ku ko ku bugg a tuumaal jaamam te àndu ci doo mënoo fexe ba jaar ko fenn ba tuumaal ko mënoo laya laya lay ba am ñoo xam ne li ngay li ngeen di def duñ ko xam seytaane nag nee na yàlla tëkku na nee na am na sa jaam yi bàyyi ma ak ñoom parce que lu ma neex dinaa leen ko defloo waaye yàlla nee na ko am na sama jaam yoo xam ne mënoo ci ñoom dara senegal dafa am nit ñoo xam ne kenn du leen laal dafa am nit ñoo xam ne kenn du leen laal te nag nit boo xamul yaayam nu mu ko juree fuñ ko ëmbee fan la fan la dooree hmm? bu muy nekk ci biir yaayam lu mu doon dundee fan la jaar ba màgg ba nekk li mu nekk tey danga war a maanu ci moom ak ku mën a doon nag moo xam Ousmane Sonko ak ku mën a doon ay affaire Ousmane Sonko nañ ko teg ci suuf nañ ko teg ci suuf bu fekkee liñ ñu dégg rapport yi médecins yi def gendarmerie def Ousmane Sonko deful dara tous sequl ak ndaw ci dara wax leen ko mu leer naa fekk baaxut naa baaxut ñun nag senegal dañoo bëri ay naa Sénégal fi mu nekk doy na waar doy na waar doy waar goo xamante ne ah ku tiitul doo nit ku tiitul doo nit Moustapha Diakhaté ngeen foog ne li mu toog wax ko ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam ngeen foog ne moo ko tey ngeen foog ne sagom la parce que dafa toog pour uññi sutura dafa toog pour uññi sutura toroxal koo xamante ne takkul laalewul parce que loolu mu wax en consciencieusement mu ànd ak xelam du ko wax gars yi nañ uti leneen lu ñuy def te Ousmane Sonko bii nañ ko nañ ko teg ci suuf <laughs> nañ ko teg ci suuf ku ne am nga sa bidiw <laughs> boroom xam-xam yi xam nañ li may wax ku ne am nga sa bidiw <laughs> ku nekk am nga sa bidiw Ousmane Sonko ñi ko jiitu ci politique bari nañ ñi ko ëpp xam-xam bari nañ ñi ci sonn bari nañ waaye fi mu toll tey yàlla moo ko fa yóbbu jël ko def ko ci xolu jaamu yàlla yi yàlla nag moo xam lim ci namm waaye lum ci mën a namm rek yàlla na nekk njëriñu senegal yàlla na nekk njëriñu senegal a ah, nit ñi ñu ngi ñaan ñu ngi artu jeunesse bi ay waruñ yàq waruñ def li ma ne eh, Sénégal nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg te yàlla tax ki nga xamante ne moom la sénégalais yi dénk seeni mbir mu yor seen kaaraange muy la président Macky Sall di ko wàccee wàccuwaayam nag di ko jox respect bu mat sëkk Macky Sall fi réew mi toll nii ku la waxul ne bu réew mi tàkkee yaa ko taal da lay nax de képp ku la waxul ne réew mi bu tàkkee yaa ko taal dalay nax ndax nag réew mi kenn mënu fi def dara te neexu la kenn mënu fi def lu la ump rawatina nag ñuy def yoo xam ne mën na taal réew mi maa ngi koy wax lii bu leen koo xeeb senegal nag xamuñ ku fayu ku dóor lañ ku xamuñ ku dóore ku fayu lañ xam xamuñ ku dóore ku fayu lañ xam nit ku nekk nag am nga droit buñ la bëggee xañ sa àq ak sa yelleef ak li nga moom nga taxaw dëggal sa bopp da koy bañ ci nii mbaa nga bañ ko ci naan gars yi bu nañ waxante dëgg Ousmane Sonko mii bés buñ ko laalee réew mi gars yi amul ay yëfu naafeq di saale di dugg fii di wax di ñaan jàkkaarloo leen ak la président Macky sàll fu sénégalais nekk te bëgg jàmm Sénégal bëgg réew mi na def vidéo na dugg dem ci rajo yi wax ak Macky sàll ne coow Ousmane Sonko nañ ko teg ci suuf non très sincèrement képp kuy nitu dëgg ah bëgg senegal bëgg Sénégalais bëgg a wàccoo ak sa borom te senegal bés bu coow li tàkkee nga xam ne yow li nga waroon def def nga ko waxal ak Macky Sall coow li koo ci tudd koo ci waxal ku dul Macky sàll yàq nga ko ndax nag moom mooy buum mooy buum mi mooy kilifa kër gi lu ko neex ci kër gi moo fi am bu kër gi tàkkee moo seetaan kër gi tàkk bu coow li fayee moom moo fay coow li taqe na ci taqewu ci laalewu ci loolu ñun xamuñu ci dara waaye xam nañ ne bu ne stop lépp taxaw kon Macky Sall encore une fois ñu ngi lay interpeller man maa ngi interpeller citoyen sénégalais boo mën a doon ak foo mën a nekk ak statut boo mën a yor na nga jóg nga wax ci lii parce que nag ñi nga xamee ne noonu la ñi nga xam ne ñoo yor dossier bii di sonnee di def seeni mbir am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yeneeni mbir di préparer seeni mbir ñoom it ah <laughs> bés bu ñu laalee nag <laughs> dañ ne kenn du xeex ak état waaye ñu ngi leen di xamal ne état du xeexal ak peuple état du xeex ak askan ndax askan bee ko fal ki la fal nag bës boo demee ba pare pour jàmmaarloog moom mu folli la loolu foog naa leer na amul ñi nga gis ñu folli leen yépp ci follin bu ñaaw bu métti dañoo jàkkaarlook seen askan bëgg leen faagaaga Macky Sall nag encore une fois Sénégal bii ñi nga xam ne ñoo la sànnil seen carte sànni lañu la ko pour Sénégal di takk bëgguñu la pour Sénégal di takk ànduñoo ak yow pour Sénégal di takk même bu fekkee da nga bëgg Macky Sall ak ku ko mën a bëgg koo mën a doon coow lii bu tàkkee Macky Sall du ci mucc te yow doo ci mucc bu dee da nga ci am ay intérêt sa intérêt dana yàqu bu dee say intérêt ngay sàmm ak ya nga xam ne yaa ngi koy am ci Macky Sall ak cay avantage ba doo wax Macky Sall dëgg xamal ne coow lii bés bu tàkkee say intérêt intérêt Macky Sall ak intérêt Sénégal yépp ay tàkk coow li bu tàkkee képp koo xam ne imaan nga wala kilifa diine boo mën a doon di nga bëgg julli ji ci jumaa ji ci jàkka ji doo ko mën di nga bëgg say taalibe ñëw ziyaare si la doo ko am yow ngay kilifa nekk ci kër gi yor sa njaboot dinga bëgg génn dem lijjanti ji dépense doo ko am moo tax coow li na ci senegal yëpp wax na ci senegal yëpp taxaw du dëgg du yoon du dëgg du yoon ku ko wax ak ku ko waxul ku ko waxul naa feq nga ndax lu leer nañ kenn du ko jeex xool asamaan jarul buuxante yaay yi Sénégal moo yóbbante nañu waxante dëgg Sénégal képp ko xamante ne yaa ngi koy def lu koy taal bu tàkkee doo ci mucc te képp ku ci mën a wax pour coow li jeex boo ci waxul xamal ne bu Sénégal tàkkee bokk nga ci ñi ko taal bokk nga ci ñi ko taal lan mooy ndey lii lan mooy ndey lii lu ko fi jar président Macky Sall euh, yàlla daf la may lu rëy muy nguur ci nguuram gi yàlla rek moo yeyoo nguur waaye bokk nga ci yàlla fonk ba jël leen dénk leen nguur ndax nag Serigne Fallou moo waxoon ne Senghor dama koo bëgg lu tax mu ne dama ko bëgg ndax yàlla du ko bëgg ndax ku yàlla bëggul du la dénk nguur kon Macky sàll yàlla moomu la bëgg ba dénk la nguur nga la rus ko nga la sant ko ci li mu la dénk ci nguur gi mu la jox te te te defaloo ko lu tax mu jox la ko ñi mu ko joxut ñu tooñuñ ko tooñ goo xam ne moo tax mu xañ leen ko kon yàlla moomu sant ko ci lan mooy li mu bëggoon dénk la nguur gi wóorul la ko ngir sénégalais yi jaamu yàlla yi askanu Sénégal nga yërëm leen orienté leen dimbale leen aar leen Macky noonu rek nga mun a sante yàlla ci limu la dénk waaye tey yàlla moo moom jaam yëpp gis nga coow li maa ngi koy waxaat encore une fois Sénégal nag dañu mën di napp nëppal ay nañ ñaan fii ñaan newu fi fi ñuy ñaanee xam nga mooy fan mooy fu ñu demee ba mu mënatuñ dara jaaxle jaaxlewuñu sësuñ Macky Sall mooy njiitu Sénégal waaye moomul Sénégal te moomul sénégalais yi mooy kilifa gi nag waaye nag dëgg amul kenn koo xam ne dina la romb dëgg kuñ ko war a waxalo fi Sénégal toll fi Sénégal toll lii kenn mënu ko régler ku dul Macky Sall coow yi ngeen di wax xale yi nañ def lii ñii nañ def du affaire bi du loolu wax leen Macky Sall dëgg te yàlla tax dëgg yàllaa ko moom nañ wax dëgg balaa ñoo dee tey ci guddi nañ wax dëgg balaa ñoo dee suba am na ñoo xam ne bi coow li di tàmbali fi la leen fekk anañu dee nañ Macky moo warut ci fi ko yàlla teg muy jàmmarloo keneen koo xamante ne bokkuñ statut booy xeex dangay xeex ak sa moroom Macky Sall ñi ngay xeexal doo seen moroom li nga yor boo bu la doyulee dara dootu la doy bu fekkee soow mu woyul nag dala mun a bugg a yàqal soow mu woy ba pare ah coow de mën na tàkk mais fi coow li di yem kenn du ko xam de kenn du ko xam kenn du ko xam man duma wax kenn bañ bul bañ du ma ko wax kenn ndax man damay bañ man li ma leen di wax mooy Ousmane Sonko coowu Ousmane Sonko nañ ko teg ci suuf ñu jàll ci leneen coow Ousmane Sonko nañ ko teg ci suuf ñu jàll ci leneen ngir yàlla ngir yàlla ngir jàmm senegal Macky Sall ñu koy woo ci suuf wax leen ko ci kaw mu dégg ko kilifa yi dem wax leen ci plateau tele yi kilifa yi wax leen ci rajo yi hmm? yéen a ngi xeetloo loo xamante ne yéen a ngi xeeb loo xamante ne ñi ko seq ñëpp ku nekk yaa ngi préparé sa bopp ku nekk yaa ngi préparé sa bopp nag dañoo toll ci jamono ji laa nouvelle technologie ah lépp looy waajal nit yow jàppal ne mën na la waajal lu ko raw lépp loo mën a def nit xamal ne mën na la def lu ko raw foofu la jamono toll Macky sàll bu fekkee bëgg nga Sénégal bu fekkee bëgg nga Sénégalais yi coow lii fay ko de Marème fay sàll coow lii sa jëkkër jooju monsieur le président de la république nee ko coow li na ko fay ndax coow li bu tàkkee door ci mucc sa njaboot du ci mucc yéen ñi wër Macky Sall yépp du ngeen ci mucc li may wax xam ngeen ko bu baax a baax li may wax xam ngeen ko bu baax a baax xuloowuma xeexuma dama bugg sama message bi mu leer ci boppu sénégalais yi ñun amuñ lu ñu neex amuñ lu ñu neex Sénégal buñ demee ba tey coow bëgg a Sénégal bëgg a tàkk ñu ne lan moo ko tàkk kenn kuñ doon tuumaal mbiru jigéen loolu du taarix bu rafet ci Sénégal Sénégal fi mu toll ak Sénégal fi ñu leen teg ak li nga xam ne moom la fi sunu maam yi liggéey ah mag ñi lu ñu liggéey Sénégal Sénégal yor réputation boo xamante ne ah ñi nga xam ne ñoo ñu jiite si diine sax dañ ñoo nawoon ndax loolu tey ñuy dugg ci ay détails senegal lu ne nga fay gis léegi gars yi <laughs> nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg te yàlla tax Ousmane Sonko jaamu yàlla bu set wecc la bàyyi leen jàmbur ah nee nañ ma nag jàpp nañ fi Idrissa Seck Idrissa Seck jàpp nañ ko dooleem bëriwul parce que biir këram la nekkoon di xeex dafay neex a jàpp jàpp nañ fi Karim Wade Karim Wade biir këram la nekkoon ay ñoo xamante ne bëgguñ ko bëgg a dox digganteem ak baayam ndax baayam daf ko bëggoon jiital moo tax biñ ko jàppee mu yomb jàpp nañ fi Khalifa Sall Khalifa sàll tamit baayam la doon xeexal muy Tanor Dieng te tanoor Dieng àndoon ak ñi koy xeexal yàlla na ko yàlla yërëm mais Ousmane Sonko mii <laughs> dafa ànd ak askan bi ànd ak ay mbokkam ne bokkul de gars yi maa ngi leen koy waxaat encore une fois Ousmane Sonko du national de Ousmane Sonko international la bu yàlla ne waaw nag nga ne déet da sonn rek ngel xeex bi jaru ko yow yaa nga ca kaw yéeg sa avion bëgg ku teen nga wàcc jëflanteeg moom mais loolu mënul nekk yow ñi ngay xeexal sax mais est-ce que dinañ fekkee ay élection xam nga xam nga nit booy xeex sax da xeex loo xam ne dafa teew mais loo xam ne kenn xamul kañ lay ñëw ñi ci nekk di wax sax ñun ñëpp kenn xamul ndax nañ ko fekkee waaw loolu tax nañu bëgg indi problème Sénégal xëy nañu tax nañu bëgg a xañ Sénégalais yi seen jàmm teree leen nelaw ah ñun war nañ saabu mag nguuru Macky Sall saa événement amee wala wala campagne électorale wala dara rek non foog sénégalais yi tiit foog nit ñi di ñaan foog nit ñi di di di nekk ci fitna mais lan moo tax gars yi encore une fois vidéo bi partagé leen ko li ma leen di wax mooy dëgg Ousmane Sonko bu ngeen ko laalee réew mi takk bàyyi leen di jéem a naq naqal di far di def seen affaire yooyu Ousmane Sonko ñi mu àndal parewuñ pour toog parewuñ pour seetaan kenn di ko def dara loolu na leer si boppu sénégalais yi mais sénégalais yéen a ngi toog seen kër yi nekk ci groupe whatsapp yi nekk ci facebook yi ñu wax politique suñu yoon newu ci na si seen yoon nekk ay sénégalais ngeen buñ ko sénégalais yi tàmm nañ boo waxee ñu ne ay ñu wax politique bu ñu fi kenn indil waxu politique. te ngeen bëgg a nekk Sénégal bëgg politiciens yi jiite Sénégal di dogal Sénégal mais loolu mooy lan loolu mooy daw responsabilité yow mën nga am sa réew nga bëgg sa réew juddoo fa sa réew jox la lépp sa réew am problème di takk nga ne intéressé wu la doo ci wax parce que yaa ngi sa jàmm parce que yow nice tu es indépendant waaye xoolaat leen seen bopp bu baax a baax a baax ku waxul politique wax lu yées politique bu ñu waxee ngeen ne démocratie bu ñu waxee ngeen ne justice ba pare ne du ngeen wax politique te lépp politique téye ko ŋàbb ko nit day bañ jouru wax bu jotee ku waxul doo gor jouru wax dëgg bu jotee ku waxul dëgg doo gor ak koo mën a doon yaay fii kenn moomul kenn kenn bindul kenn yàllaa moom ñépp nañ may jaamu yàlla yi jàmm nañ may jaamu yàlla yi jàmm Ousmane Sonko set na wecc te senegale yi dama bugg ngeen bàyyi moytu di ñaaw njort ci loo xam ne yéen bu ngeen ko fekkee woon sax mun leen koo seede ay bu def ton dara nit ñi duñu yokk ak et fa demee nañ bàyyi gis nga gars yi affaire u naafeq moo moo bon waa ji boo ko bañee bañ nga ko boo ko contrer contre nga ko mais liy dëgg ñëpp xam nañ ko wax day yanu maanaam ku yàq seq ak jigéen ba mu yóbbu la fenn xam nga ne la ngeen seq mu ngi ci kanamam bu médecin bi génne ne fii gisuñ fi dara dara amu fi gisuñ fi dara dara amu fi kañ mais xanaa loolu mooy Ousmane Sonko sequl la ndaw si dara loolu c'est très clair mais ñun foog ñu nekk fii di chercher la petite bête di jaay xam-xam di jaay ay di bëgg a taqal waa ji bëgg waa ji du sunu moroom loolu la yàlla dogal. gars yi nañ ko nangu nit da ngay nangu dogalu yàlla ku sañoon tey fi mu ko yàlla teg mu teg la fa nit ñi bëgg la di la bëggee Macky Sall fa mu nekk yàllaa ko fa teg nangul ko ko lool nag te di ko ñaanal mu liggéey senegal ci jàmm jàmm rek lañ bëgg li senegal yi bëgg mu def ko point yàlla di ko defal jàmm di ko defal njabootam. mais nag Ousmane Sonko nañ ko may jàmm may keneen ku dul Ousmane Sonko jàmm mbir yi nañ ko teg ci yoon yéen ñi faral Macky Sall laay waxaat encore une fois ak fu ngeen mën a nekk ku ngeen mën a doon wax leen Macky Sall dëgg nit boo ko faralee nit boo ko bëggee barke laa ilaha illa soo ko bëggee dimbale da koy wax dëgg yéen ñiy wax ne bëgg ngeen Macky te waxu leen ko dëgg oh defu leen vidéo wax ko coow li na ko teg ci suuf bëggu leen Macky Sall te mooy bëggu leen seen bopp ndax coow lii bés bu tàkkee bu dee privilège la wala leneen ak leneen ah di ngeen ko ñàkk de léppay dakk am na ñeneen ñoo xam ne nag ñu ngi ci tuus bi ñoo gën a bëgg Macky Sall nguur gi ñoo ko gën a bëgg Ousmane Sonko bu coow li jeexee ñu ne coppet nguur gi taxaw te du ngeen ci mun dara mais réew yi tàkk da ngeen leen gën a muus. réew yi tàkk da ngeen leen gën a yeewu mais réew yi tàkk fii sax bu démb doon tey du ñu tàkk ndax ñoom dépassé nañ lii actuellement réew yi tàkk jotoon tàkk ci at yu passé ya ñoom bu démb doon tey bu doon tey duñu taal seen réew ndax dépassé nañ ko mais bu fekkee ñun foofu lañ toll tey nañ seetaat suñu bopp maa ngi yemale fii vidéo bi nag waaw maa ngi yemale xuloowu ma nag li may wax daf ma ñor li may wax ça me tient à cœur li may wax ni ça me tient à cœur tooñu ma kenn saagawuma kenn xasuma kenn dëgg gi nii rek laa ko mën a waxee pour ngeen comprendre danger bi nga xam ne moom la Sénégal di di di di di di di parcourir yow mi may déglu partagel vidéo bi na ko ñëpp dégg Macky sàll Sénégal bu tàkkee yaa ko taal ndax coow li kenn mënu ko fay ko dul yow yaay buum yaay buum. sa yoon newu ci waaye nag yaay dogal na coow li jeex ndax coow li du coow dara coow tuumaal nit ki la te nit ki set na wecc man foogoon naa ne fa lay yem defoon naa vidéo sax di sant yàlla ndax lépp leer na wala bu fekkee du dëgg ñi nga xam ne ñoo def PV ak yooyu mais woo leen leen ngeen jàpp leen dem leen jàpp ñoom Pape Alé Niang dem leen jàpp ñoom Ahmed Aïdara ñu siiwal affaire bi lépp ngeen lépp leer Sénégalais yi bëgg sonal ci ay plateau télé ay mag yoo xamante ne gëmuñ dara. ay satan lañ xamuñ lan lañ nekk ci télé bi bëgg sonal nit ñi mais mais Sénégal mooy mais sénégalais yi bañ leen yéen bu fekkee ne bi Senghor de Senghor ba léegi yéen a ngi doon woote dëgg ah waa Ablaye waa Abdou Diouf ñëw gars yi bàyyi dëgg ba ñii ñii xeex dëgg pour Abdou Diouf jóge fi ab Ablaye Wade ñëw ña doon xeex dëgg di dëggal ay fen ñu ñëwati Macky sàll moo doon xeex dëgg temps Ablaye Wade Ablaye Wade jóge fi mu ñëw ay mbokkam ay ma ay di ñëw di dëggal ay fen mais loolu fan lañ ko teg ñun kañ lañuy ñuy dem kañ la dem affaire bi du kenn Sénégal la te lii Sénégal dara du ko doxal lu dul dëgg asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi jégalu. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.